asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara fu ngeen mën a nekk di ñëwaat ak yéen ci suñ ñaareelu jataay ci jataay yi nga xam ne ñu ngi koy amal di ci fàttali tukkib sëriñ bu mag bi ci géej gi ak lu aju ci màggalug Tuubaa gi ak luñ ci mën a jànge ci ay leçon ci jataay bi weesu waxoon nañ leen ni lislaam dugge senegaal ci ab tënk bu gàtt ak nim fa tasaaroo ci sababu góorlu goo xam ne ay kilifay diine di ay sëriñ yu nekkoon senegaal góor góorlu nañ ko ci tasaara diine dem sax ba taxawal état islamique ci Fuuta lépp ngir dëgëral diine loolo moo nekkoon di continuer ba nag ni tubaab yi ñëwee senegaal bi tubaab yi ñëwee nag muy français yi ci la mbir yëpp soppiku nag yu baax yépp ñu jàppe ko léegi muy lu bon yu bon yee nag ñu jàpp ne moom mooy la baax kon tubaab yi biñ ñëwee senegal ñoom dañoo taxawoon temm rek ci taxawal diine maanaam fay diine ak itam soppi nit ñi muy sénégalais yi ñu soppi leen def leen ay tubaab ñu yor jikkoy tubaab di xalaat xalaati tubaab fàtte seen diine fàtte jikkoy lislaam loolu moom mooy doon seen yitte loolu tax na ba gépp kilifa ak diine koo xam ne yaa ngi doon yëngal di woote jëme ci lislaam tubaab yi faw ñu sàkkal la pexe benn ñu rey la walla ñu génne la réew mi loolu tax na ba tubaab yi rey nañ ñu bari ci sëriñ si nekkoon senegaal muy kilifay diine ya ak borom xam-xam yi rey nañ ci ñoom lu bari jàpp ci ñoom lu bari tam ñu bari ci ñoom tam ñu génne leen dëkk ba dàq leen ñu génn kon ginnaaw bi ñëwee rek ci la yàq yàq yi commencé tasaaroo jikko yu ñaaw yi commencé tasaaroo ci senegaal boroom xam-xam yi itam di jaxasoo ak buur yi ngir bëgg lu am te duñ leen wax dëgg buur yi itam nekk fa ñoom itam ku man sa moroom duma ñuy xeexoo ak di nangoonte ay alal ci loo xam ne du dëgg waaye ci ay tooñal dong la aju woon jikko itam yàqu ba boroom xam-xam ya fa nekkoon ak kilifa yi diine yee dema dem ba léegi bëgg tur ak bëgg siiw ak bëgg daraja jaral leen lu ne nga xam ne léegi kenn dootu wax ngir jëm yàlla waaye daal ku nekk da ngay wax rek ngir bëgg amu tur mbaa bëgg siiw ñu dem a dem ba fo ak caaxaan tasaaroo làmb yi ak sabar yi ci senegaal tasaaroo ñëpp wala boog ñi ëpp ci nit ñi di ko def te jàpp ñu ñu ne lii dara la caaxaan yi ak yàqu-yàqu yi dama dem ba àgg ci ñuy fowe alquran di ko fowe ku nekk dégg na li ñuy wax laawaan nga xam ne ay nit ñu jàng alxuraan ba mokkal ko ñoo daan wër di ko tari di ko wayantoo ba nopp boole ko kum fecc ñu leen tëggal ñuy fecc di leen may ay dërëm lépp dañ ko def ngir bëgg lu ñu am waaye loolu day wane rek yàqu-yàqu yoo xam ne ak jéggoon na dayo ñu dem a dem bay fowee alxuraan mooy waxi yàlla ju màgg ji ju sell ji ñu dem ba koy sabaru di ko way ak di ko taasoo ñu leen tëggal ñuy fecc di ko tare ñu dem a dem ba jigéen ñi ak góor ñi di jaxasoo ci fu nekk te kenn du jàpp ne lii lu aay la kenn du jàpp ne lii lu xaraam la dem ba ay biddaas tasaaroo biddaa yu bari tasaaroo loo xam ne dañ koy def tudde ko ak jaamu yàlla te du ak jaamu yàlla nit ñi rawatina boroom xam-xam yi ak kilifay diine yi dema dem bay puukarew ci seen biir di ëpplante ay daraja di ëpplante aw tur di xool ku gën a siiw di puukarewu ci ku gën a mokkal alxuraan di puukarewu ci ku ëpp xam-xam yàqu-yàqu yooyu ku xool sax mbind sëriñ bi yim mbind ci ak njëlbeenam danga gis mu koy junju boo xoolee téereem bi tudd maxaalixu niiraan danga gis mu cay wax naan te tanabbahu yaa ayuha shubbaanu qaadakumu ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaati kulla xiin كاد الترى كرسم دار قد عفا في ذا الزمان لمضي الحنفاء إذ ترك اختفاء آثار السلف لبدع قد زينت بين mi ngi wax ne yéen waxambaane yi yéen nit ñi yeewu leen kat yeewu leen te xam ne la fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon muy sunnaam sax ak gaa baax yi toppoon ci moom muy saxaaba yi ak taabiin yi lépp léegi effacé nañ ko lépp far na nara dëkkëram yi fare woon noonu la li mu fi bàyyi woon fare moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daane loolu li ko waral nag mooy ñu baax ñëpp dem nañ léegi te ñi fi des itam ruy ñu ñu baax ña topp ñu tànki gaa yu baax ya waaye liñ topp mooy ay biddaa yoo xam ne dañ koo rafetal ba mu rafet jàpp ne lii mooy li baax te lépp ay biddaa kese la ay mooy yàlla kese la loolu sëriñ bi mi ngi ci doon junju yàqu-yàqu yi nga xam ne amoon na jamono yooya yàqu-yàqu yooyu yëmut woon rek ci niti ordinaire yi mooy liñ tudde amatu naas waaye même kilifay diine yee fa nekkoon jamono yooyu sax ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo waroon a gindi nit ñi ñoom dañoo demoon ba yàqu-yàqu yu laal leen ba nga xam ne ñoom au lieu ñu gindi nit ñi jaarale leen yoon waaye ñoom ñoo gënoon a yàqu ñoom ñoo gënoon a yàqu ñoo gënoon a sànku loolu itam boo xoolee téereb sëñ bi bi mu tuddee masaalikul jinaan mi ngi koy junj lu mel noona mi ngi wax naan isbaana na annama shuyuqu haza zamaanu julluhum fuquuxu di wax ne daal dem na ba leer naññ fi mu ne nii de mooy dem na ba leer naññ de fi mu ne te mooy maanaam lu bari ci sëriñu jamono ji ñu nekk ay fiir lañ ay fiir lañ mooy teg leen gis teg leen gaa yu baax teg leen waaye yàlla ba dem ci ñoom ngir jëm yàlla ak sàkk lu baax waaye boo demee ñu kepp la ndax ay fiir dong la dañuy fexee jariñoo kese loolu sëñ bi moom moo ko wax dem bay wax na sax wala takun multafitan li kulli man raaytuhu yushbihu cheykhan fi zaman daane yow nit ki bul def koo gis muy nurlu lu ab sëriñ rek nga dem ci moom jàpp ne kii ab la daane kat ndax du caagi ne lépp loo gis mu mu ron rek aw miskit la ab booboo la waaye itam bul jàpp ne loo gis muy leer rek aw weer la booba mu ngi ci doon léebu di wàññe na kat ñi nur nurlu ay sëriñ ak di nur nurlu gaa yi baax ci jamono ji bari na waaye duñu ay sëriñ duñ gaa baax waaye ay fiir lañ yoo xam ne liñ bëgg rek mooy fiir nit ñi dund seen kaw ci turu diine ak ci turu lislaam boo xoolee itam sëñ Moussa ci ay mbindam mi ngi junj yàqu-yàqu yooyu moom itam am na ci ay wayam fu muy waxe naan ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di daggu chef yi buur yi faf nasaraanu ñu jaxasoo kàngam yi ak nasaraan yi ñii dafi qaadi ñii di ànd ak naar yi yi doomi soxna daal di sampi daara te donga yàgg jigéen ne mel na saara siri mu xànd ak saara yendu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo sëriñ ci ànd ak wóor yi faf di daani ñële di tux di fóon ñëley waajaani ñële di waññilu ñëley bandaani ñële di taryaaxi ñëley waajaani góor ak jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb yi gor sabar yi yépp jaaxaan kenn amatul xastu li wajhi laahi kaa nga ki fóori faf di jaanin laahi jaanin mooy aji tooñ laahin mooy aji fox si musaaka nee na kenn amatul xastu li wajhi laahi kaa nga ki fóori faf di jaanin laahi lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ne làmbaay Seex Bàmba daal di ñaan ci barkab jiili ne yàlla may shafiu kulli jiili kon loolu ba tey ab tënk la ci wane yàqu-yàqu yi amoon ci jamono jooja nga xam ne kaa yi te mooy ñi ma ko la alxuraan ak fóore yi te mooy boroom xam-xam yi ñëpp dañ doon caaxaan dañ doon caaxaan di moy yàlla di tooñ di fo te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo waroon na gindi nit ñi loolu kon moo continuer ànd ak tubaab yi nekk biir Sénégal ñoom itam taxaw temm ci fay diine ak soppi nit ñi def leen ay nasaraan def leen ay tubaab yàq seeni jikko fexe bañ bàyyi diine ji ñu nekk te mooy lislaam ji nga xam ne dugg na ci seen réew bu yàgg yàgg ba ñu baree bay xam ko ba tasaaroo ci réew mi kon tubaab yi loolu moo doon seen yitte naka ñu ñëw rek ñoom tubaab yi commencé teg ay gàllankoor yu métti ci diina ji di tere ko ubbi ay daara ak di wax ne képp ku bëgg ubbi daara da ngay da ngay ñaan autorisation bañ may la ko ñoom tubaab yi ñu bañ may ko ñoom tubaab yi nga doog ubbi daara ak di limité ñi limite maanaam limub ñuy jàng ci daara yooyu ak di tëj école arabe yi wala boog di forcer nit ñi ne faaw ku ubbi école arabe da nga cay boole njàngum français wala boog lu ñu la may nga ubbi ko dem bay tere nit ñi sax ñu aji màkka ba yàgg ñuy wax ne léegi ku bëgg ajati màkka dangay joxe garantie nangam ci xaalis doo ko mën a dem màkka dem sax ba limité ñiy dem màkka par année ne léegi chaque année nangami nit ci senegal ñooñ ñooy dem màkka dem ba wax ne ku bëgg a jàkk sax da ngay ñaan autorisation kon loolu lépp ay gàllankoor yoo xam ne ñoom tubaab bi tegoon nañ ko sénégalais yi ci ak tooñeel ak ci ak noteel waaye itam ngir bëgg yàq seen diina ak soppi leen def leen ay nasaraan bépp kilifa ak diine bu mas a nekk foofa di woote ci lislaam gàllankoo nañ la benn ñu rey la wala ñu génne la réew ma wala boog ñu jàpp la tëj ci kaso bi loolu tax na ba génne nañ ñu baree bare ku ci mel ne Cheikh Abdoulahi Niass Alhaji Abdoulahi Niass dàq nañ ko mu dem euh, Gambi ku ci mel ne Cheikh Ali Diop ak Cheikh Mamadou sekk ak Mbarguloo Cheikh Mbarguloo ñoom ñëpp tubaab bi dañ leen a génnee ba ci sëñ Tuubaa mi ñuy waxtaane moom itam loolu moo tax tubaab bi génne ko moom tam yóbbu ko Gabon moom fa at yu yàgg yàgg ñu delloo si ko doo ko yu bari murtane beneen yoonaat lépp ci tumuraakeel ko ak bañ kenn topp ko ak bëgg itam li muy woote dakk ñi nga xam ne tam génnewuñ leen itam ñu leen di xatal lu ñu man ku ci mel ne si alxaaji Malick si moom jëriñu ko génne waaye dañ ko doon xatal ci jàngale gi mu doon def ak di yar nit ñi lépp rek kon tubaab dañ ko doon def ngir gàllankoo nit ñi ci seen diine ak fay lislaam loolu moo waral ba ñu jàpp sëriñ bi yóbbu ko Gabon ngir fay diine kon xam naa dañuy taxaw fii tey incha allah ba ëllëg ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci beneen jotaay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.